moo ñu jël dossier bobu dugalaat ko comme cour suprême daf ñu envoyer notification bobu moo ñu ñu dugal ko cour suprême moko wax mais est-ce que conseil constitutionnel daf ne ne Ousmane Sonko dama renvoyé dama rejeter document am candidature parce que. nakul ci fichier électoral bi waxu ko. mais est-ce que nakul dugal li ñuy def ni confusion la. mooy maanaam tardel jël la rek. dugal nañ ko ci Sonko mi ngi ci liste yi. Sonko mu ngi ci liste yi. waaw mi ngi noonu avant comme euh, euh, dama ne Sonko musuñu ko ràññee sëñ bi dama lay wax lu am. Sonko de manière partielle. partielle pour pour provisoire. dama ne nekkul ci liste yi. kaay ma xamal la. Hmm. de manière partielle. xam nga booy ne dugal nañ ko ci de manière partielle pour un un temps bien déterminé. Hmm. mais da ngay ne est-ce que génnee nañu ko d'abord. mais génne woon kan mais déjà Ousmane Sonko kenn musuko fichier électoral bi bi kenn décision de justice wala bon document à caractère juridique moo génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi bu wax même le gars même même le même le sous-préfet de Ngor Almadi Vous santaan vous souhaitez, souhaité souhaitez la vous à ko ci le commissariat de Djepel. Hmm moom dafa dafa soumettre il y avait pas un document à valeur juridique il y a même pas de décret il y a même pas de décision de justice donc wax Ousmane Sonko ban moment lañ ko génne ci fichier électoral bi sëñ bi man dama bëgg nga xam. Hmm. dama bëgg nga wax à quel moment la ñu génnee Ousmane Sonko ci fichier électoral bi man dama bëgg xam loolu man. bañi bañi ba ñuy ne tey tey dañoo bëgg réintégrer waat xam nga koy koy réintégrer. da koy génnee ba ba paré da nga koy génnee ba paré alors arrêtez alors euh, lolu mo la war ni kii dama la né hmm. sëñ bi. Hmm. c'est que dañu bëgg jaxassé xel nit ñi. Hmm. il faut que ngeen xam lolu ñaari juri ñaari juridiction waxuñ mënuñu wax le contraire c'est vrai que mën nañu wax le contraire mais ci lo xamante un fait bo xamante à caractère juridique xam nga radiation nit mënoo ko interpréter si le fait est factuel là wax munoo ko interpréter si le fait est factuel si madame, si nous un document à caractère juridique voilà Ousmane Sonko Ousmane Santo Sonko que, am adresse électorale à Ziguinchor désormais tout nekkul ci liste fichier électoral est-ce que musu nga ko est-ce que musu nga gis ce document là <laughs> est-ce que musu nga gis ce document là à caractère juridique Ousmane Sonko dëkk bërëm sàngam am adresse électorale voilà Donnez un ko xaar ñu gis acte de radiation bi moo tax ne la Ousmane Sonko est introuvable voilà voilà kay la wax bi c'est clair enfin moo tax la ñoom ils jouent avec le temps des élections ñom confusion jaxasoo le bëgg andi sénégalais Ousmane Sonko kenn ci fichier électoral sénégalais yi ñi wax ba légui kenn musu tégg ci bëtam. Hmm. li ko Ousmane Sonko voilà le document yi woné que caractère juridique signé par Diou, signé par le juge Diou, signé par tel tribunal li ko Ousmane Sonko désormais il a été radié buñu dalé wax bo ba dit, ñi wax nañu waxat ci hmm. mais musul nit mënul musul tok ci plateau document alors c'est clair euh, te Ousmane Sonko lii moo waralol, radiation amul. alors c'est clair moi tax ma ne la euh, nañu arrêté euh, di naan dañ koy réintégrer ki ngay réintégrer day fekk nga génnee ko mais ki nga génnewul munoo ko réintégrer. alors donc la Cour suprême dina si taxaw incha le 14 mars alors. ñu dem bien benn urgence bi nga xam ni itam dafa sànq dab nañu muy hmm, les membres de la conférence des présidents yu assemblée nationale convoqué neen leen niki li nga xam que bi 4 mars fa nga xam ni Sall. Euh, Marie-Joseph euh, Diallo nouveau bâtiment à Assemblée nationale à partir de 15 h ordre du jour du mois calendrier de travail pour l'examen des affaires en euh, instance euh, exactement Alors moi li nga xam que modi ordre du jour bi afan li ñu fa daal di waxtaane mooy li nga xam nekk moo bi ma kon euh, tey jii convoqué nañ niki ni ki li nga xam nekk moo di demee di euh, peut-être si li nga xam nekk vote bi donc article premier sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle te lepp lépp dinañ ko daal di li nga xam ne Modi par rapport ak manifestation yi nga xam tam Sénégal ni ki li nga xam euh, euh, mars 2021 japp li nga xam maudit juin 2023 à euh, bi moy article de moy amnistie entraîne sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution mané ni kon nag mën ñu restituer li nga xam ne dañuy remettre euh, la, la, remise totale de toutes les peines euh, principales, accessoires et complémentaires ainsi euh, justement que la disparition de toutes les déchéances, euh, exclusion, incapacité et privation des droits attachés à la peine ma ni li que mel alors article 3 l'amnésie euh, ne euh, préjudicie pas au droit des tiers euh, dem nañ ba si li nga xamné que modi article cinq bi donc jappé ni tam li yëpp nag dinañ ko daal di li nga xamné que modi loi bi fa nga xam itam maison assemblée nationale président Macky Sall sàkku na si wàllu wunu mel donc nak convoqué en urgence encore une fois li nga xam que moo les membres de la conférence des présidents You y a eu 4 mars 2024 à 15h dans la salle de marie josephine Diallo au nouveau bâtiment droit ordre du jour clanier euh, de travail pour l'examen justement des affaires en instance exactement. Euh, Sagna commission d'enquête euh, jamais casier loi de buzz <laughs> <laughs> oh oui oui mais c'est du une loi d'amnésie de Moi, Moi, suis une loi de buzz <laughs> parce que du euh, encore je suis désolé encore une fois moi je n'aime pas tellement parler de cette loi d'amnésie parce que la loi là n'a pas de sens. réconciliation sens réconciliation non de sens une man franchement dama am euh, dama am question. Hmm ñun fan ni jëm Sénégal fan la jëm fan lay jëm ñun fan lañu jëm man ñun. Mm. Sénégalais yi ni Yo, jëm. Mm. yow ñi nga ci manifestation bi amul benen expression bi ñen qualifié lu dul terroriste ay terroriste ñoo dugg ci fi Sénégal tal au yi tal station d'essence et bandi infiltré Maïmouna Ndour Faye taxaw na ci émission mu ne. ñoom ñoo ñoo les jeunes manifestants. ñoom la elle a dit elle est peut-être malade. elle n'est pas malade. Cadeau, elle n'est pas malade simple agression là. elle n'est pas malade. s'il vous plaît. s'il vous plaît. dama s'il vous plaît. Euh, tax voilà la dangerosité de la chose. ñi nga jàppee que ay terroristes. ñoo semé la terreur au Sénégal ci manifestation yi. Tu ngay voté loi d'amnistie pour balen effacer Il y a contradiction Il y a contradiction contradiction bu reuy mo am ay Le président Donald na wax sur la table ceux qui veulent installer comme adresse hmm, le chaos le chaos merci Hmm. voilà merci le pays ingouvernable déstabiliser le pays duma ko nangu tant que je suis là ils vont passer d'abord par moi mais c'est son rôle tey ce même président revient pour nous parler d'Amnesty baalu c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils voulaient au préalable au préalable au départ ñu mu doon wax ni que nous ñoo bëgg installer le chaos au Sénégal nous lay baal parce que les les les marches les les moments de de mars 2021 ils ont ceux qui voulaient installer le chaos le chaos le mot là est lourd le chaos aujourd'hui ils veulent les amnestier <laughs> il y a confusion contradiction on pédale on pédale un vélo en avant mais comme ça rétro pédale mm. le Sénégal fait des bons en avant on marche vers là-bas vers l'avant ils il marche gis nga boy boy boy, mm. sens contraire. des bons en arrière. do, dem do, dem bouger. mais enfin, bouger contexte pour ne la pour ne qui veut qui veut qui veut qui voilà voilà voilà voilà l'interrogation qui veut amnestier qui on n'amnésie pas des personnes on amnestie des faits Des hmm. faits yooyu faits yooyu da nga koy juger ba pare ba mu définitif Abdoulaye la loi est ba muy amnésier ñoom Séré ñoom Clédor s'en ak hmm, ñeneen maître Sey, l'assassinat de l'assassinat de maître Sey la loi est un, hmm. mais dañ Dam définitivement d'abord, Voilà, loi pour maintenant la loi de Benno Yakar, la loi de de APR de ce régime là parce que voté, avons voté conseil des ministres pour assemblée nationale une loi C'est hmm. une loi hmm. maintenant waxuma loi la lan lay au au réel excusez-moi au final loi Bob lan lay amnistier lan lan ban mais fait aux manifestation quand kan moo est-ce que xam ñan la jugé ñan la ñuy quelles sont les forces occultes là. D'abord, dama ne parce que yow boko ko non, c'est comme si yow ay nit ngay tudd ay nit qui es en train de dire des personnes mais amnistie amnistiewul ay personnes parce que sànq yaa ngi ko doon wax Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye dinañu bénéficier ñooñu c'est des personnes ñooñu c'est des personnes. mais des faits mais les faits. les faits là, lay wax ni il faut requalifier les faits d'abord statuer sur les faits ba ba mu ne fan fee yaa ngi nii. lii moo xew ak nga doog a xam diw ak diw laale na si mais quand il parle d'amnistie yo da ngay amnistier ay nit ay personnes et qui, fait, qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait. Hmm. Moi, je t'ai posé la question. Qui veut amnestier qui <laughs> Voilà l'interrogation. Qui veut amnistier Quand moi, veut amnistier quand Est-ce que nous, ça n'a pas ku les lois, loi boobu wala ko créer moo bëgg amnistier <laughs> eh, mais oui oui <laughs> c'est ça la réalité est-ce que beaucoup, est-ce que nakul ñoom ñoo bëgg amnistier seen parce que les jeunes, les jeunes qui étaient condamnés, les jeunes qui sont en prison, nous réclamer amnésie. Est-ce que... Procès Voilà. Exactement. Procès lañu bëgg. Toujours boo déggee jeunes yi yëpp ku procès la bëgg procès ñu xoolaat dossier jugé ko gaaw mais musul ne président baaluñu yóbbuñu amnistie wala dugal. voilà moo tax ma ne la kan moo soxla amnistie boobu réellement kan kan moo ko soxla et eh, kan mo beug amnistier kenn kan bu ñu fa égué dinañ xam kan mo beug amnistier kan donc le bureau est convoqué en urgence à 15 heures euh, incha allah nga japp ni yéen si ay dossier moom nga koy convoqué en urgence Karim Wade convoqué woon en urgence c'est aussi convoqué en urgence en urgence euh, yu yu Guy Marius Sagna yi moom jamais si tiroir dossier yo xamante mom lañu ñu convoqué en urgence duñ ko convoqué en urgence de c'est un dossier BOP, l'année convoqué en urgence le dossier sur les les les manifestations de mars sénégalais depuis mars nous léegi convoqué en urgence ba def commission d'enquête indépendante tay faxas nañu am na si andi. alors ah bah, merci beaucoup ñu lay jaajëfal. <laughs> c' est des précédents <laughs> dangereux dans eh ce bah, pays. <laughs> c'est des précédents dangereux. temps bi weesu na bu yàgg tàggatoo alors tàggatoo ga très yi jaajëf aussi l' de nos internautes yi nga xam ni tam ñoo doon top à travers li nga xam ne. exactement donc xam naa damay njëkkee ci ñom di leen nuyu encore une fois. Hmm. di leen jaajëfal ñom ñëpp ah. hmm. donc euh, ñom ci émission bi lañ bok ah, ñu melni mohamed Lamine Djité. ah ñu mel nii donc euh, euh, Diakhaté donc euh, voilà ñu bëri ah Fatou Sidibé Ami donc Fatou Bodian donc Sen abdu Abdou Sen ah donc Afida Afida Fayed mm. Seyad donc ñu ngi koy jaajëfal Aliou Cissé donc euh, ñom ñëpp Fatou Bodian ñom ñëpp ñom ñëpp ah ku lim Dioum ñoom euh, Moustapha euh, Aram Aram Diop ah, ñom ñëpp ñu ngi di donc encore une fois comme d'habitude hmm. di les Sénégalais de de l'extérieur la diaspora